Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 71 sur la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce lundi 11 mai 2020, le ministère de la Santé l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 19,3%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 169 contacts suivis par nos services, 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 3, Liberté 3 1, Mbao 1, Pikine 1, Tambacounda 3, Touba 2. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés et déclarés guéris. en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 3, de l'hôpital de Ziguinchor 1, de l'hôpital principal 4. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1886 cas ont été déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés et donc 1151 sous traitement. Le ministère de la Santé l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle je vous remercie asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di ñëw di jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi ñuy wax covid 19 fii ci Sénégal ci altine tey fukki fan ak benn ci mois de mai 2020 jot nañu résultat examen virologique yi nii ci juróom-ñeenti téeméer fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mooy li ngay xamante moom lañuy wax contact yi nga xamante ne moom lañuy ñuy saytu di ko topp ci bësu bërëbu liggéeyukaay yi juróom-ñett ci ñoom moom la wax cas communautaire yi nga xam ne mooy nekk di walal mbas mi wal bu métti bi ñi nga xamante ne ñu ngi ko am ci fan yi yooyu nag ñu ngi leen di fekk ci diwaan yi Liberté 3 am na benn Mbao am na benn Pikine am na benn Tambacounda am na ñett Touba am na ñaar juróom benn fukk ak juróom yi nit yi nga xamante ne dañ leen a entré woon ci l'hôpital yi mooy ci bërëbu liggéeyukaay yi bañ leen testé gis nañ ne seen yaram amatul doomu jàngoro ji wër nañu waaye juróom ñett ci ñoom ci malaat yi dañu leen di wax cas grave mooy yi nga xam te ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi mooy service de réanimation nekk nañ ci hôpital Fann ñett nga fa tëdd ci hôpital régional bu Ziguinchor benn nga fa tëdd ci hôpital principal ñeent ñu ngi fa tëdd ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci la hôpital yi ñu ngi am tan bi mbas mi duggee ci senegaal ba bés mi tey ñu rappelé waat ko fàttali ne depuis le 2 mars la 2020 ñu ngi toll si junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn cas yi nga xamante ne ñoom positif nañu gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi am juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom yi nga xamante ne wër nañu gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji fukk ak juróom-ñeent ci ñoom làkku nañu génn nañu àddina am na benn boo xamante ne dañ koy fàttali toujours fii lañ ko entré woon waaye jotoon naa dellu ca dëkk ba mu jóge woon wax nañ ñu faatu nañu faatu na ci ñi nga xamante tey ñoo des ci lalu hôpital yi tëdd fa ñu leen di faj ñu ngi tollu ci junni ak euh, téeméer ak juróom fukk ak benn junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn ñoo tudd fi mu nekk ci lalu hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi loolu nag dinaa ci taxaw tey wax ci seetlu gis nañu ne mbas mi mu ngi wal ci biir Sénégal te ba ñu ci defee jàngat li ñu ci gis mooy ne ñun commencé nañu di miranteeg jàngoro ji te loolu warut am fi mu nekk nii nit ñi dootuñu séparé wu du ñu toll ci diggante diggante nit ak nit gis nañ ne léegi motatul meetar am na ñoo xam ne sax dañ ne boo solatee masque bi bu la neexee ngeen jegante loolu amul geste barrière yi mooy lépp luy aar fexe ba mbas mi du duggati wala bu duggee itam wàllante bi du bëri ndax dugg na ba pare lépp lañuy ñuy boole mooy ne masque la dinaa leen ko wanaat bu si kanamee moo ne dañuy xàllante suñu diggante lu toll benn mètre bu ñu ko munee sax romb dina baax ngeen di fàttaliku rek bu ñu nee mbas mi dañoo war a mbasante loolu bu ko defee kenn du ko fàtte. waxoon nañ ne bu kenn nuyooti ak say loxo bëgg nañ ko trop waaye mun nañoo nuyoo neneen saafantoo neneen ba nga parce que xam nañ ne tey jaar tamit ci loxo yi ci ci la gën a bëri. wax nañu tamit ne boo dee sëkkat wala ngay tisooli. gis nañu léegi ko def ñu daw la aajuwul ñuy daw nit ñi aajuwul ñu leen di euh, euh, euh, beddeeku li ñu bëgg a wax foofu rek mooy ne koo xam ne yaa ngi koy def te yor mouchoir papier bii def ko nii la ci sa bakkan nga def ko ci sa gémmiñ boo paree mbalit mi nga gis nga def ko ci wala si laa yoroo mouchoir ndax mun ngaa génn te doo yor mouchoir nga daal di def nii ci sa conc bi su ko defee du mën a wàll nit ñi beneen bi nga xamante tamit bëgg naa ko jàllale ndaxte gis ngeen ñun ñuy liggéey ci wàllu kër docteur dañ ñoo jox lii di badge parce que waxtu wi ñu toog ñun nelawatuñu noppalakootuñu muy ñi ci kaw ba ñi nekk fu nekk di ci wàllu kër docteur dañuy jox lii ci liggéeyukaay yi bu ñu waree dugg ci kër yi ànd ak acteurs communautaires yi parce que nag am na ñu ci bëgg a moo tax tey ñu baal ma dinaa leen ko wax ne ñu bàyyi ne dañuy dugg ci biir kër yi ku ñu ne toogal sa kër bu ñu waree wax ay nit ñu dugg ci biir kër gi dafa am lu ñuy àndal yoon dafa am lu mu ko àndalee mooy badge bii man fu ngeen fekk maa koy sol donc nañ def attention parce que ci loolu moo tax ma indi teg sama kayit yi dañu ne Interpol Interpol mooy ñi nga xamante ne mooy polisu àddina bi ni mu ko waxee àddina bi yépp noonu la ko waxee nit ñi ñu ngi tàmbali mooy ñi nga xamante ne dox jàmm taxul ñuy dox ñu ngi tàmbalee jël naan am na ay tests yoo xamante ne bu ñu leen ko defalee dama ne Sénégal ay kàngam ñoo wër faj faj bi kàngam yooyu wut nañ yeneen kàngam yu leen ci dimbale képp ku bëgg dimbale ñu si na nga ñëw xam nañu fi ñu dimbalee woo nañu bunt yi tëjuwuñu Interpol nag gis na ni mu ko gisee fii noonu la ko gisee feneen ba tax mu ciy wax nee nañ am na benn produit nit ñaa ngi dugg naan dañ koy mën a testé lii yónnee nañ ko directeur yi ñu ngi ko yónnee médecin chef région gouverneur dinañ ko jot police moo ñu ko yónnee police yu Sénégal parce que boobu ci Interpol la bokk produit bi mu ngi tudd Unigold TM HIV dañu bëgg a jaar ci affaire sida di nax nit ñi loolu nag ñun duñu ko seetaan te am na ñoo xamante ne dinañu ko fajal wax nañu fii ba wax ki nga xamante ne ci ni mu koy jaayee mu ngi tudd Trinity Biotech def na ci ay date de péremption ak yépp wax ne garab gi baax na garab gi baaxul Sénégal nag dafa am kuréel boo xamante ne dañuy wax ne dañuy xeex garab yu baaxul yi ñooñu dañ ci jublu loolu mooy waral ne du rek nekk waa santé dina nekk ñeneen ñoo xam ne force de défense et de sécurité gouverneurs yi yeneen ministère sectoriel yëpp secrétaire général du gouvernement ñëpp dëgg nañ ci parce que nag bu ñuy liggéey nañu am xel ne am na ñoo xam ne ñu ngi yàq boobu lii laa bëggoon wax dégg ngeen fu nekk ñuy wax artémisia ne jële nañ ko ci beneen dëkk indi ko naam ñu ngi gërëm di doolee gërëm di sant suñu président de la république son excellence parce que xëy na naataangoom jox na ko ko waaye ba mu ñëwee daf ko teg ci loxo ministère de la sant action sociale bi nga xamante ne moo yor li nga xamante ne mooy faj bii nag ma leen di war xob bii waxoon naa la ko mu ngi ci tundu Sénégal yi am nañu ko même bu bëriwulee am nañu ko lii nag dafa bëri ay façon ni mu amee façon bi faj noonu la amee façon bi nga xamante ne du ko faj garab gi xam nañ ko Artemisia bi ngeen seetloo bi nga xamante ne niwaakin génne nañ ko at yi ci tegu moom lañu ñu dugal mais ci form forme artémisinine pour wax ne garab goo gis tey mu jóge fu munti dëkk ci askan wi ci fi askan wi dëkk fi nga xamante ne li ñu naan garab soriwul boo demee nit sax am na ko fleur ci këram te xamu ko artémisinine boobu ba ñu ko commencé paludisme mooy sibiru ci la ñu gis ne sibiru bi mu ngi gën a wal te du faj garab gi doon koon faj moo tax ñu dindi ko te bu ñu koy dindi dañu koy ànd ak ab décret décret yëpp a ngi nii ku fi nekk ministre de la santé xam nga ko ñëpp xam nañ ko moo tax dañ koy tegaat ci kaw waxuñu ne garab gi jógee Madagascar baaxul parce que scientifique boo gis du ne baax na du ne baaxul tànk que ko mooy li ñuy wax essai thérapeutique mu ngi ci ay loxo yu leer am na ñoo xamante ne ñu ngi ci commencé di wax mais dañuy ñaan ñëpp bu fekkee ay kàngam lañ ci affaire santé ci affaire wër-gu-yaram ñu ñëw ñu lañ koy ñaan ñu ñëw ànd ak fajkat yi fajkat day ànd ak ay fajkat loolu buggoon nañ ko xam parce que wax nañ ne lépp loo xamante ne mu ngi ci direction de la pharmacie et du médicament ministre de la sante jël na ko jox ko ko parce que li ko wër moom mooy commission du médicament mooy commission de la pharmacovigilance tey garab dina baax États-Unis xam ne baax na comme ñoom lañ jël ay référence yaakaar ne ne lépp lu fa jóge rek baax na lépp lu fi ñëw fii commission yi ñu ngi fi tegu fii ma taxaw nii boo jàddee nii si rek di nga gis li ñuy wax commission commité éthique comité boobu kenn def recherche ak koo munti toll nag laa ak kàngam boo munti doon ba boo ñëwee lu ñu saytu li ngay def parce que dëkk bi nag dëkk droit la dëkk yoon la du ñu bàyyi lu neex nit def lu neex nit jox keneen concernant les définitions dama ne feebar boo gis gisee àddina am na définition kaa communautaire kaa importé yaa ngi dégg ak cas contact ak bu mu ci munti doon feebar bu ñëw ci àddina bi organisation mondiale de la santé bi nga xamante ne mooy mbootaay xeex xeet yi nga xamante ne moo yor wàllu wér-gu-yaram dañu koy jox awale ko dans la diplomatie sénégalaise ñu étudier ko ak suñu représentant résident OMS bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal définition yi mboolem waa kër docteur mboolem association professionnelle d'infirmiers de sage-femme de médecins d'hygiène koo xalaat ba ñu duggee ci weeru janvier le 22 janvier balaa minuit ku nekk jot na ko donc lu ñu ciy changé dañu koy changé ànd ci organisation mondial de la santé Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ne ñun ñëpp dañoo mën a jàng macha allah mais njàng moom yëpp dañ ko boole def ko say ànd ñu ñëkk depp benn. loolu daal bëggoon na nekk ci li ngeen xam ne moom laa leen koy wax bugga nag teere ci lii nga xam ne ñëpp dañoo topp communauté communauté communauté man mi lay wax ci communauté laa jóge communauté ba ma jógee bokkul ak communauté bi nga xamante ne journaliste bi foofu la jógee man séeréer la xëy na moom joolaa la keneen ki balant la bëgguma lim lépp lu ci nekk boo fa demee gox ba am na fa kilifa def nañ ko ñun ministère de la santé nekk na ci fukki région yi ak ñeent loolu buggoon nañ ko wax du lu ñuy forcé mais dëkk bu ci nekk danañ ko def ca làkk ba muy làkk danañ ko wax ci anam ya mu war a amee kenn du jógee Dakar dem ba Casamance naan yaa ngi fay wax loo xamante ne engagement communautaire la wala affaire communauté communauté boo gis assemblement boo gis am na fa koo xamante moo fay kilifa man mii ngeen di gis ñemoo ma dugg ci benn communauté te àndumaak acteur communautaire ya àndumaak préfet dëkk ba àndumaak maire dëkk ba donc Sénégal may teerale foofu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di waxaat na ñëpp gën a góorgóorlu te xam ne mbas mi wóoraguñu ndax xamuñu virus bi wóoraguñu ndax gannaaw suba lay jeex wóoraguñu ndax ci fukki weer lay jeex wóoraguñu ku jàng littérature grippe xam ne am na grippe yu nekk ci àddina bi defoon fi lu toll ñaar wala ñetti at. bu nekkul grippe choléra bi nga xam ne moom la ñu gën a miin toog na fi Sénégal dakaar fii ma taxaw de 2005 à 2010 maa ngi leen di gën di leen di sant lii lépp dinañ ko def nag dina delluwaat mu ngi ci surtout ministère de la santé acteur communautaires yi ñu ngi ci. médecin chef de région ñu ngi si médecin chef district ñu ngi si infirmier chef de poste ma ne ku bëgg a jàppale nanga dem jàppale ñooñu parce que soxla nañ ku leen jàppale. di wax ne tamit continuité des soins ñàkk xale yi boo nee sama doom duma ko yóbbu ñu ñàkk ko waaye fièvre jaune mu ngi ci dëkk boo xam ne soriwuñu poliomyélite mu ngi ci dëkk boo xam ne soriwuñu te ñun loolu daan nañ ko fii ci Sénégal ma ne dëgg la war a ñoo tiit waaye war a ñoo tiit di daw gaynde ba mbëkk mi loolu tamit bëggoon naa vraiment ñu xam ko di jeexale nag masque bi ma fomp tuuti ndax masque bi yaakaar na ne bu ñu ko solee rek pare nañ ci déedéet lii moo tudd masque chirurgical mboolem ñun ñii yéen ñëpp gis naa ngeen takk ko bu ngeen ko takkee ñetti waxtu yi nekk da ngeen koy changé mais gis nañ ne yàq bi bëri na ci biir yàq boobu am na benn video buy circulé bu wane ne am na ñoo xamante ne ñu ngi koy for di ko jéem a raxasaat di ko jéem a jaayaat loolu baaxul boo xamante ne dafa nekk ci ne ñun suñ tailleur yi ñoo koy ñaw gàcce ngaa la ma suñ tailleur yi de waaye tissu bi nañ def ndànk parce que tissu bi tamit lu ci gën a bëri tissu bi defaraguñ ko fii Sénégal gaa artisan yi gàcce ngaa la ma ñu ngi koy defar waaye nag buñ ci deful ndànk kuñ ne masque tissu yooyu mooy piis yi piis yi boo ko solee dañu war nga ci am ñaar ba ñett ndax di ko mën a raxas di ko mën a fóot raxas sax laa ko tudd ndax boo ko fóotee nii man mi may fóotee jàpp ko fete ko fete yu metti dafay yàqu parce que li ci biir bi tax wàllante bi du am moom moo tudd ton mooy li nga xamante yéen góor ñi da ngeen koy faral def seen suufu daami nay loolu boo ko fetee ku si nekk sa soxna seen bu ko fetee mu yàqu donc nañu dégg li ñuy wax bu baax sol masque bi bu fekkee man damay sol ne dama koy summi daal di fomp daal def nii seet fi weñ gi nekk nii masque dafa am koy solee daal koy dugal ci sama nopp ba mu leer ma ne dugal naa ko ma defaat nii te bañ koy laal laal yu ëpp ëpp yi gis naa sax ay waa ko docteur di ko def di wax muy wadd boo ko xësee def nii ba def ko nii xam laal naa fii ci suuf benn yoon ma defaat nii lunette yi boo gisee leelee nga sol ko mu mel ni dangaa nooy ci kaw lunette bi looloo koy def ni nga sole maski moo baaxul nga jël lunette bi daal di koy teg fexe mu nekk nii ci kawam yéen a gis waaw vraiment loolu buggoon naa ko wax di leen di gërëm di leen di sant wasalaam yal nañu yàlla may dal ba nga xamante ne dañu mën a jële fi mbas mi ndax stratégie yi nga xamante ne teg nañ ko fii ci Sénégal bu ñu mayee fii ak ay diir rek yaakaar naa bu si ñëpp àndee ñëpp comprendre mbas mi dina fi génn wala bu fi nekkee tam dootu ñu sonal parce que suñu mag yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi di dem mag jar naa bàyyi ci dëkk wasalaam